internet yéen ñi nga xamante ni yéenay safoo Sow Fula Diéry maa ngi leen di nuyu a baax ku ci nekk fa nga toog jàppal ne fekk naa la fa ne la a a a safoo Sow di safoo Elvision dama lay digal nga dem ba YouTube laal nànk Elvision mais nga abonné nànk laal bës sa cloche mu ubbeeku lépp lu ñëw fekk la fa ñu sanante ak yow yu baax kon nak let's go samay cameraman ñu dem Elvision Media hey Elvision Media Média bilay woo naa la woo waaw waaw kay mbok yi comme nima len ko don waxe yegsi naa nii dugg si naa ah ci bir atelier bi salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu sëñ bi noo def. maa ngi sant yàlla. Ada Fall laay seet. waaw maa ah sama papa laay gis gitu. nii. dëgg lu neex eh, kon papa maa ngi leen nuyu bu baax a baax nga jàkkaarloog tey waa El Vision Média eh, jàkkaarloog itam sa doom may eh, Sista Kumbis dëgg neexul tey nag sama papa laa dalal comme ni ma leen ko waxee ma ñëw fii tay damay taq rib defar moto dëgg du neex papa maa ngi leen nuyu bu baax a baax. laay fay la doom naka ma. léegi damaa bëggoon nga wax ma nag papa yow ya, la kan kan mooy Ada kan mooy aadama Fall waaw man la Adama Fall euh, di doom ci Diamaguène Sicap Mbao waaw nekk mécanicien scooter te gëm ko lool nag mu nekk sama samay mbir daal mm-hmm. waaw ba tax ma nekk ci daal bu heure bi ndeysaan waaw ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax waaye mbokk yi may seetaan bu leen ragal dara de ndax papa ji ma koy wax li ma tàmm la waaye nekku sama bëgg-bëgg dëgg neexul ma lay nuyuwaat bu baax baax comme ni nga ko waxee di nuyu say apprenti di kontaan ci fi ma la fekk yow nag nga jël métier bi di defar euh, scooter moto te ngeen ne da nga see fier trop ma lay laaj métier bi nii nu mu demee waaw métier bi dafa doon métier boo xamante ni si dañ ko bëggal suñu bopp daanaka ñun biñ nekkee xale dugal nañu ci ay terre yóbbu nañu ci ay menuisier mais xale lu mu bëgg rek bàyyi ko ca ba tax na ñun métier mécanicien nekkoon sunu sunu sunu bëgg-bëgg nekkoon loo xamante ni si dañ koo dañ koo dañ koo bëgg daal mu nekk sunu xol moo tax ñu taamu ko def ko bi ñu demee tamit ba xam ne tamit fi ñu sunu waajur yi fii ñu ñu yóbbu ñun arrangé wuñu dañoo dem ba xam ne ñun lii mooy sunu bëgg-bëgg ñu bàyyi ñu si def ko te boobaa tamit ñoom dem nañ ba xam ne ñun lii mooy sunu bëgg-bëgg ñu bàyyi ñu si ba tax ñu si nekk nii ci la ñuy tedd daal waaw di ci di ci suturloo bu baax baax te ñu ci sant yàlla daal pour que tànnoo mécanicien oto mécanicien leneen ak leneen nga choisir mécanicien moto waaw mécanicien moto c'est que dafa nekk loo xamante si man maa ko bëggal sama rek parce que gis naa fi mécanicien oto comme li la waxoon sànq rek nee naa fi fi menuisier fi mais mec gis fi mécanicien yi tamit mais mécanicien moto yi man ñoom ñoo neex moo tax ma jël métier bi def ko def ko ci sama bopp daal ah, d'accord mécanicien moto bi moo la neex ndax yow mën nga maa expliquer ñii li ñuy def lan la waa ñii li def euh, lii Beverly 250 la moteur bi lañ xar ni biel bi lañ doon changé ak poussine yi moom lañ doon changé nii moom la booy bi tim Thierno léegi moom la ñuy sàmbale waat nii ko tasee dañ ko yóbbu biele ko après changé poussine yi moom la ñuy monté nii daanaka am na mécanicien yu bëri sax yoo xamante ni si sawruñ sax ci di liggéey lii parce que dafa bëri coono parce que da ngay jaabante ba sonn moo tax ñu bëri sawaruñ lii sax sama benn gaayan laa koy defal nii sax moo tax ma sawar ci nii rek sëgg ci nii mais nekkul sax loo xamante ni sax ni sawar naa du yomb de ndax li may làkk daa mel ne ay chinois la mu naan maay sabeleeg lu ne lu nekk li may wax daal tey sama vraiment comprendre ma ko mais nag noonu la métier bi nga xamante ni yow yaa ci nekk kon yow mi nga xamante ni yaa koy dund rek yaa ñu mën a wax lan la euh, dama la bëgg a laaj nag yow ban risque nga mës a dund ci lii parce que moom ba xam am na ay risque mu moto rek ubbi ko ba mel nii nga bëgg koo boolewaat ndax moom am na am na risque yoo leen ci dund genre waaw waaw day am ay risque day am risque yoo xamante ni si temps en temps nga tijji moto mais risques yi lu ci ëpp ak yu si gën a garaaw mooy nit da lay indil motoom nga gaare ko fii ñu sàcc moto bi parce que liñ naan deru mécanicien du set deru mécanicien wu du mës set parce que en même temps après yow yaay mujj toppaat ci ginnaaw xam nga di wër moto bi di wër moto bi boo gisul borom daf lay fayeeku te boobaa da koy fay. ci foofu noonu laa bëggoon a ñëw parce que des fois nga gis nag ñu naan yéen mécanicien moto yi yéen ay jàppale xale yu góor yi ci sàcc moto bi ñuy def dañ koy wax damaa xamul nag est ce que papa loolu lan nga ma ci mën a wax ndax des fois nit indi fi moto xamoo moo moom xamoo moomu ko nga jàpp ko tas ko tasar tasar est ce que loolu mës nga ci am problème wala lan nga ma ci mën a wax. waaw loolu moom mosuma ci am problème c'est parce que nit ku nekk yow yaay xam li nga bëgg rek nga def ko. métier bi am na ñoo xamante ni si ñii ñi ngi naan métier bi baaxul ñii ñi ngi naan kii métier mécanicien yi ay trian lañ mais kenn ku nekk yaa xam li nga bëgg nga jàpp ko man kii ci laay suturlu sama lépp kon lii duma ko caaxaane nit su fi indee scooter mu wóor ne ma ne kii lii mu fi gaare moomu ko dama koy taalalaatal ndànk mu dem yoonam don taka da koo sàcc wala leneen mais noo koy xamee nga yóbbu ko mais euh, parce que dina am ñoo xamante ni si bu ñëwee duñ la nëbbu dañ naa la weñ bi dafa am trace su ne lee dafa am trace rek ah. yow mën nga comprendre ne weñ gi moomu ko soit da koo jël wala am na fu mu ko dooree ci côté yi su ko defee yow tamit yow yaay dawal ses responsabilité bu ko defee nga ne ko nag man machine bi mënu ma koo laal wala mënu ma koo job defee nga taal ko mu dem yoonam. mais jëloo jëluñ fi dara comme ça lii nga xam ne comme ni nga koy tasee nii ak xale yi nga fi nekkal ku ne xam ne ne dëkk bi dafa dëgër ndax yow say xale mosuñ fee jël dara yóbbu ko wala en tant que say xarit rek ñu ñëw fi jël benn ma parce que lii ni ngeen koy tasee c'est facile à ramasser. waaw waaw waaw waaw moom da faral di am parce que parler rek dinañ tas benn moteur boo xamante ni dañ koy teg fii deux jours. borom du am xaalis buñ ko ni ngeen def sama bossu jëkkër waaw borom du am xaalis buñ buñ ko dépané su ko ñu ko fi buñ ko fi temps en temps dama pan nangam ak nangam ta xam nga pele ñaala affaire yi nga yëkkati pièce boobu jox ko di ko yaakaar xam après nag ci lay bagage di demee di demee ba borom ñëw taxaw ne la léegi sama moteur laa bëgg ñu sambaleel ma ko ñu jox ma ko bu ko defee yow nga tamit nga ci moo tax en général moto yi nga fi gis yi am na yoo xamante seen moteur wàcc na moo tax ñi koy sóoraale quoi. ah dëgg neexul comme ni nga ko waxee sa sa réponse leer na trop mais nag day mel ni dama fi déggoon temps yi tamit mel ni da ngaa tawatoon tawat bi moom fii la la dalee ci da nga choge woon wala da nga toog rek feebar waa tamit ki nu may taxalee nii tamit ci àddina. waaw oh. kay léegi nag tawat boobu laa bëggoon nga ñëwal ma ci tuuti parce que lu nekk nit ñi wax nañ ko ci. Mm, waaw dëgg la moom ndax tawat boobu tawat bu doy waar la ndax euh, lu am lu nekk rek yàllaa ko dogal man ba ma demee euh, sog la woon parce que ci lii may yëngu la kenn ku nekk xam na ni mécanicien ak soge ñoo ànd waaw mais nag dañuy ñaan yàlla defal ñu ci sutura rek te dañu aar waaw man jam ñaajo laa soge woon bi ma sogee jam ñaajo hopital camp bi laa am neuf mois waaw neuf mois laa am ci hopital camp bi ci biir neuf mois yi tëdd tëddaat naa benn benn ñaar ñetti weer yoo xamante ni si tëdd naa suñu kër fi hôpital am na médecin boo xam ne daf ma fekk chaque jour bu ñëwee 5000 laa koy fay déplacement pansement waaw mu nekkoon tolof tolof boo xam ne tolof tolof bu métti la ci sama àdduna parce que ma sax di ci wax xaw doy comme ni nga ko waxee noonu léegi nag loolu moom comme nee nga woon choc la mënuñoo yaakaar ne nit a la ko def wala genre ndaxte dañoo yaakaar ne liggéey bi moo amoon ay jafe-jafe ba waral loolu am ci. ndekete tel n'est pas le cas des fois nag ngay dox ci mbedd ba gis koo xam ne dañu naan place aada fii la génnee dañuy laaj ba xam yow yaa leen di ber wala ñoom ñooy toog mu neex leen ñu dem ber seen daara wala naka la demee yow ak say apprenti ndax des fois nga génn moom dem ci benn garage ñu ne kii place aada la nekkoon. Mm-hmm. Mm-hmm. am ndax am na ñoo xamante ni si euh, dañuy ñëw parce que euh, yàlla dafa dogal ne man damaa yor ñaari métier moo tax sax daanaka ma xaw a xaw xaw xaw a sonn nii parce que ñaari métier yi mooy dama dama boole mécanique bi ak électrique bi euh, wàllu scooter moteur scooter moom moteur la ak fiil mhm. kasa oto tamit noonu moteur ak fiil léegi man dama boole moteur ak fiil tax ma mu xëy mu gën a métti ci man noonu la demee parce que am na ñoo xamante ni si garage yi daanaka am na secteur boo taxaw boo nekk aar aarfaal électricien lay laajte dinañ la wax man may kan waaw léegi nag dama cee dem ba boole mécanique bi loolu moo tax ne aussi am na ñoo xamante ni si dañ fiy ñëw pour jàng électrique am ñoo xamante ni si dañ fiy ñëw pour jàng mécanique tamit noonu la demee yàlla wërsëgul ñu ci xam nga rek waaw te koy sante yàlla daal. waaw koy sant yàlla bu wér ma bëggoon xam la yow lan moo la neex ci métier bi lan nga xam ne dund nga ko ci wala loo xam ne jënd nga ko wala loo xam ne defal nga ko say waajur loo xam ne neex na la saa yoo ko gisee maa nga sentir ko dina la neex. Euh, métier bi li ma ci gën a neex mooy euh, sama yaay Cees la nekk. Mhm. ak samay njaboot Cees la nekk mais li ma ci gën a neex damay liggéey te li may liggéey dama ci am fulaak fayda te li may liggéey dañ may fay. suma ne nelee amul khalis waxuma deug métier bi métier bu am xaalis la soit nak ñeneen ak ñeneen nek ci parce que bo ci deugale jubal rek dama lay wax di ko xam bu baaxa baaxa baaxa baax métier bi ne métier bu am xaalis la ñun dañ ci nek di ci yëngu mais li ci gëna neex moy li way rek am sa soxla lamb sa poos faj ko ci sasi dafa doon lo xamanteni ci ñu neex la du bepp goor warna rayante lolu ci am sa soxla rek taxaw làmb sa poos daj ko génne taxaw mu wóor ne la ni daf laa leew doom nga jënd ñaanoo saraxu di teral sa yaay di teral sa papa yaakaar naa ne mbokk yéen ñi ñi seetaan euh, liñ leen andil tey neex na leen ñu ngi doxante woon fii ñëw biir Sicap doon waxtaan ak Ada Fall muy mécanicien en même temps di électricien ci moto euh, mu mu amaloon ak ñun ay explication vraiment métier bi nekk risque parce que moto rek risque la ñu ngi lay jaajëfal bi baax a baax di la laaj euh, dernier suñu dernière question rek day dëppaat ci ñun Elvision Média nan nga gisee suñu site internet bi ak suñu liggéey waaw Elvision Média moom dama kontaan ci ñoom ndaxte daanaka sama sama xarit sama rek sama série boy ba danaka mo fa abonné lon parce que dama dafa am un jour ñi sétane ben ci ci youtube bi ñu gis len sen ben kat ci ñu doon def ci koor gi temps yele passé mhm. après ñukoy sétane mo won ma fiñ koy abonné ñu sé ma koy sétane ni di sétane ay kat yu bari yu neex sax yo xamanteni ci tamit damay gis ak ñom ci soirée yi dañuy def sen liggéey normalement ni mu waré waaw damay gis ak ñom ci soirée dama te dama wër nit ñi lii ñu jàpp ni bu fekkente ne bàyyiwuñ ko kanam la jëm waaw rawatina yow sama doom ndaxte xale bu am jom nga waaw gisuma la ci daraay ñàkk fayda eh, uude moom mu la gisee rek la lay awalee waaw te xamuñu leen ci daraay ñàkk fayda liggéey daal lañ leen xamee te di leen ñaanal yàlla defal leen ngeen dem ba am ay télé télé télé barki alquranu karim yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def kon papa ñu ngi lay jaajëfal baax baax di la wax nga tàggu tàggu mbokk téléspectateurs yi nga xamante ni ñoom ñoo ñu seetaan te ñoom la ñu uh, àndaloon ci nga xamante ni su ñu suñu lu ñu def rek mu jàpp ni baa mu neex ñoom ñoo tax tàggul ñoo ñu nuyu leen bégewaale say say apprenti waaw waaw maa ngi siyaar ñëpp di nuyu sama apprenti yi mhm. waaw Thierno Youssoufa Cheikh waaw sama yeneen booy yi waaw ñoom ñépp ay jàmbaar lañ daal ay jàmbaar lañ danaka moteur bi man damay seug na def len nangam def len nangam rek ci gidam sama yoon ñom ñoy égalé lepp muy ñu doon xalé yu am jom ño xamanteni ci dara indi wu len fi lu bëgg seen métier mu doon ñu bax ñu ma déggal nak té amna emprunté yo xam duñ déggal seen patron mais ñi dañ ma déggal respecté respecté ma jox ma cër mu doon ñu bax waaw di nuyu Baye zalmi sama xarit la waaw té yaaka na ben ñaar yoon lañu gisé waaw benn bi ci waali waali deux ba la woon mhm. waaw sama waay la daal sama xarit la mhm, waaw maa ngi koy xaritoo bu baax te xam ne daal moom sama séddoo la daal waaye waaw waaw ñoom nañ ma nañ ma bàyyi Bamba quoi maa ko féetewoo. woo incha allah waaw <laughs> rafet na mbokk yi ñu ngi kontaan bu baax a baax amaloon nag sam papa émission bi di Ada Fall muy mécanicien moto tey moom dama am envie liggéey moto xam naa damay daal toog nii rek saaliw. doo ma xajal tamit damay liggéey daal. waaw kay mbokk yi comme nii lañ leen ko waxee woon nii lañ ko amalee woon nekk mécanicien tey bu jigéen nekk ci biir xale góor yi di ko ñàkkante nii la Euh, yéen ñi nga xamante ne nag yéen ñamay seetaan maa ngi lancé appel pour jeunes yi nga xamante ni yéen a nekk ci kër yi mbedd yi di naan ataay di def genre mën ngeen a nag daal di bàyyi loolu lépp daal di nekk parce que lu baax la liggéey boo gis boo ci bëggee tekki il faut nga dugg ci am risque kon nag ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen wax ba beneen incha allah seen li ma bëgg a doon ngeen àndoon ci si sa kumbis baax a baax di kontaan ci sama caméraman yu ñaaw lii sëñ Saliou ak sama belle dame bee ci ginnaaw maa ngi kontaan ci yéen ñëpp toute équipe Elvision Média. Elvision Média. Hey, Elvision Média. Jama say manje bi. Waouh wow manje bi. Oh, wow.